يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم Voilà. Non, monsieur Goudron, voilà. Non, monsieur Goudron. Banjo! Banjo! Banjo! Banjo! koy bi mais kenn jëm day bàyyi ëpp kii am benn sens

だからそうじゃねえ Gracias. mbooloo mi wa يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم